ok donc on est d' accord que sur ce plan on ne peut pas parler de népotisme. non ni de poste de complaisance ah. non ok dama ñëw ci Diop. Euh, Diop ban jàngat nga am ci mbir mi parce que opposition bi commencé woon nañ agité. Mhm. ci lu bëri wax ci nomination yi wax ci yenn ñu digg woon te defuñu ko. Mhm. gis nañ sax aussi poste Pape Alé Niang tey ci suba. Euh, mu am lu mu posté. Mhm. bon euh, bon di sant rek di sant sama co-débatteur yi kii fi mu fi mu daanlee ci laa jël parce que wax ne moom réew mi dafa ndóol. mu ne yi ay détails la moom moo ko wax de te hmm. opposant la hmm. neen yi ay détails la nee na nomination bi sax jëru woon sax wax parce que Sénégal yi war nañoo tal leneen lu hmm. moom mooy wax de mu ne ki nga ko jox am na mérite ne ki nga ko jox ko compétente la ne ki nga ko jox ko yàgg ci passif la kon déjà elle fait partie des militants des de première heure kon déjà ñun dañuy sant ba kon son excellence Bassirou Diomaye Faye kon yaakaar gi amoon si moom ba léegi ñoom ca la nekk kon nag loolu wax dëgg yàlla dañ koy accompagner si action yi muy def. Mhm. dal na xel bu baax mais li may wax rek mooy dafa bëgg indi lënt-lënt. d'après bi waxee loolu ba pare dafa wax daal ni ñun au sein du Pastef ñun ñoo d'accord wala ñu ñuy critiquer nomination mhm. loolu mu amul. ñun Pastef vraiment. c'est de Pastef amul kenn ku. non du tout on est on est très solidaire même à travers les actes parce que ñun mënuñu def yenn sacrifice ba pare combat bi ñiy faatu ci ñiy ñàkk ci seen i cër. Mhm. ñiy ñàkk seen liggéey ñii seen kër tas si ba pare ñu ñëw. lu ni président de la République am responsabilité war a nommer ku ko neex tànn ses propres collaborateurs nga ne noo ñun parti bi ñi nga xam ne ñoo téye ay tànkam. Mhm. d'accord uñ si. loolu amul les pacifiens dans le ensembles à travers toutes les coordinations sont très solidaires à travers les actes que président est de poser. Mhm. et de son premier ministre. loolu moom euh, bon c'est la mieux partagée léegi leen li may xam mooy ci li ñu war a wax ak li ñu a wax. xam nga moom dafa wax ne réew mu ndóol réew mu ndóol dafa am lu ko waral xam nga lan moo ko waral. Mhm. mooy 1961 au jour ne dañoo bëgg benn rupture systématique systématique. systématique moom mooy le système. Mhm. parce soo xoolee ñun à chaque fois discours du président Sonko système bi ngay tudd système bi ngay tudd de 2016 à loolu nag dafa am benn njàngat bu ñu war a teg njàngat mooy lan kon mhm. ñi fi nekkoon ñoom lan lañ def Pape Alé Niang mooy li nga wax publication Pape Alé Niang bi Euh, opposants yi bëgg a profité ci publication Pape Alé Niang bi ne dafa critiquer état bi non non Pape Alé Niang critique état bi. Mhm. danañ l'unique solution est de dire la vérité au peuple sénégalais loolu la wax et de procéder des ruptures sinon ce sera le retour du bâton nee na li ñu war a def ñun. Mhm. Bassirou Diomaye war koo def. dafa lancer alerte quoi dafa lancer alerte nee na nañ wax Sénégal yi dëgg mooy lan lañ hérité l'état des lieux bi ñu ko defee pare njombe yi ak mbuxu mi lan lan la fi président def. Mhm. régime sortant def. ñu wax ko Sénégal teg ko taal yëpp dégg ko nee na sinon suñ ko deful nee na bis dana ñëw ñun ñu doon xeex wala li ñu doon xeex ñoom ñooy retourné at suñu kaw. may wax si njombe yooyu njombe yi yaa xam ne ñoom def nañ ko Pape Alé Niang wax na dañ leen wax dëgg par loolu le ministre des sports ministre de la jeunesse Khady Diène Gaye mais pour te dire xam nga affaire olympique yaa ngi koy fàttali ko ci olympique indoon fan yii rek. Mhm. ñu ne olympi olympiens yi joxuñ leen budget olympiens yi jox ñu seen prime est-ce que sax danañ participer ci olympique jeux olympiques yi bi mu ñëwee moom déjà budget ministre des bi xam ne nii moom lañ jagleel euh, sport de haut niveau 7 milliards la woon 7 milliards la Macky Sall nattoon jox leen ko xam nga ñu def 7 milliards dañ ko pasar pasaree maanaam moom bi mu dikkee Khady Diène Gaye bi mu dikkee maanaam le ministre bi mu ñëwee xool l'état des lieux elle a trouvé que 750 francs Sénégal yéen laay wax. ah bon waaw waaw c'est grave. 750 francs. yéen Sénégal yéen laay waxal ministre des bi mu ñëwee. budget bi xam ni da ko fa fekk benn pàcc la du budget sport bépp de. Mhm. benn pàcc rek la boo xam ne dañ koo jagleel. Mhm. sport de haut niveau. Mhm. maanaam bi mu ñëwee xool ko ceytu ko 7 milliards yi xam ne dañ ko nattal ministre des na ko lii sport de haut niveau moo ko moom moom madame la ministre bi mu ñëwee 750 francs la ci fekk. moo indi loon coow loolu 750 francs imaginez 7 milliards ba 750 francs ñii ñoo mën a indi problème ba xam. est-ce que suñu olympique dañ participer aux olympiques yi xaaral ma àggale te lii may wax nii nag Sénégal ñoom lay wax lii may wax ni moo xew fépp léegi nag par le biais de son excellence Bassirou Diomaye fay ak le PM ñoom ñoo trouver les moyens ba lijjanti benn budget jox suñu olympiens yi ñu mën a participer ci jeux olympiques yi mhm. benn benn benn benn athlète bu nekk jox nañ ko onze millions trois cent mille francs comme budget léegi loolu ay prime la prime de préparation ci la bokk. Mhm. prime de participation ci la bokk. ok poste Pape Alé Niang bi la ñu la mhm. bokk. Mhm. même aussi athlètes yi xam ne nii ce sont les handicapés sport nga xam ne daawuñ bokk maanaam ñoom Macky Sall bi fi nekkee amul lenn lu ñaan séddale athlètes yi di ci boole handicapés yi. ok maanaam le ministre dafa corriger loolu. danañ cee boole. léegi mu wax la mbuq xam ne ministre des sports daan ko def ak ak gàngooram maanaam képp koo xam ne nii maanaam li ñaan comité olympique bi suñ daan dem dañu am ay invité ministre bi daan dem ay fonctionnaire bi daan dem kenn ku nekk yàgg prime yi àll leen yéen a am parce <laughs> que yéen may dégg. ministre bi xam ne maam dawul puusul paasul invité yi xam dañuy toog puusuñu paasuñu maanaam ils sont nourris avec les fonds de l' état dañu daan dundal di leen auberger di leen loger di leen jox ay prime de motivation ak prime de participation comme àll yi xam ni ñoom ñoo fa toogoon Sénégal. ok maanaam ministre bi ñëwee dafa rupture la ko ne man lu may dee ay prime onze millions onze millions trois cent mille te man déw ma mhm. samay invité lan la ñuy dee ay prime dafa dagg loolu mhm. ñu ñëw ci AIBD AIBD la fa xew moo gën a grand non euh, touché manga sax laa lay wax LONASE ah, xoolal convention yi président Sonko dafa dikk si mbuxu mi ñu def mhm. dane bépp convention boo xam ne ab direction signé na ko ak nit ak organe presse bu mën doon dagg ko nañ ko arrêté mais nañ ko caytu nañ ko càmbar ma limal ko Sénégal yi touché manga bi mu ñëwee LONASE xam nga la la fekk Tange Tandian 8 millions lañ ko fay Maté 3 Pommes 5 millions lañ ko fay Xaadim Gadiaga Cheikh euh, kii Cheikh Gadiaga ko fay mhm. Maam Góor Jasaaka 8 millions Ñaaxariñ Lo 8 millions Madiambal Diop Fall 20 millions Madiambal Diagne 15 millions Ndiaw Fall 15 millions leeral ñi ngi leen fay 35 millions Aïssatou Diop Fall bul fàtte Fongib amoon na benn financement 100 millions te ñii ma lim nii ñëpp c'est l'argent du contribuable Sénégal lañ ngi def lan lañu defal ñooñu lan lañ defal LONASE du publicité dara ay convention lu lekk ay xaalis léegi nag lan lañ doon dëkk mooy saagali Ousmane Sonko ah bon moo am la réalité saagali Ousmane Sonko da nga bëgg wax ne convention yooyu li ko war mooy juste pour ñu dem mais euh, yàq yàq kenn Ousmane Sonko li ma lim ñi ma lim ñëpp lan la ñu xamee leur seul seule profession mooy saagu Ousmane Sonko de midi à 14 heures nga ñëw ci ku ku dëgg na garaaw nee na mbuj xam ne c'est un homme de sérail diplôme yi mu am. Mhm. en matière de communication soo limee Sénégal ñaar doon na ñett c'est un gars très compétent très lucide même mu participe ay foro yu bari le syndicalisme soo ko déggee ñu koy wax moom ngay wax. parce que 2007 yaa ngi fàttali grève métti boobu. Mhm. ñi ko jiitoon ci la bokk bañ tëjuñ ko ci. kooku le président Diomaye dénk kudd mais ba mu ñëwee li gën a garaaw mooy màggat seen maanaam chaque mois ñu ngi ko daan jox 500000 comme crédit téléphonique. Mhm. ñi ngi ko doon wooteel 500000 pour woote rek. pour téléphone les anciens DG. les anciens DG. Hmm. dañ daan bénéfice piis yi. loolu rek xoolal presque 200000 loolu rek presque xoolal 20 millions la par an par an. Maguette amoon na 38 conseils nee na Mbodj bi mu ñëwee da koo wàññi def ko cinq conseil conseil la conseil technique. ok nga ñëw ci chargé de mission mu amoon ci 24 da koo wàññi ba redressé ko ba yóbbu ko 4 maanaam gis nga loolu bi mu ko économiser loolu noonu noonu lépp bi mu ko économiser. jurul na ko presque deux cent millions yoo xam ne yaxanal na ko. ancien DG yi même chose. quatre rapido yi même chose maanaam soo xoolee mbëri làmb yee keneen xam nga DG moom vache laitière la. kudd kudd moom vache laitière la. kenn ku ne da nga fa am benn quota rek Marème Faye Sall amul fa quota ak institut amul fa quota. Mm-hmm. am ñoo xam ne dañu naan émerger daaw ñu sax xëy si. Mm-hmm. chaque mois ñu fay leen gardien bu mm-hmm. la Pape Alé Niang wax na nañ ko leeral. léegi damay wax man direction ak ministre yi nañ jël nit ñi <coughs> témoin ñu génn. su jar ñu def déclaration comme ni Babacar Diop defoon Thiès nañ ko def parce que amul tax. maanaam leeral sénégalais non si si ils sont obligés de le mhm. parce que ñi ngi ko saxal ay baadool lañ ay jaam lañ kenn duñu suturaal. baadool kenn ku suturaal da ko war weer ba mu ne dugg. leen traité ay jaam non si ay jaam non am na at xam ne su ma nee jaam si jëfin moo tax ma naan jaam soo dégg ñu naan diw jaam la jëfin moo tax ñu gisé ko loolu ñii jaam sax moo leen tane nañ buñ leen bu leen kenn suturaal nañ leen weer loolu directeur yi ak ministre nañ jël seen responsabilité loolu c'est important leneen li mooy ñu xam ne nii wax dëgg comme la cas de Serigne Gueye Diop le ministre du commerce kooku dafa war def benn communiqué parce que xam nga dañ ko giñ dara neeñ dafa jël ay doom ay jabaatam mais def benn communiqué mu jeex su ci waxoon rek jeex na dëgg la wala dëgg mu ne lii du dëgg nangam nangam mais jeex na wax ji kon. demul nii est-ce par exemple jékki-jékki rek ne maas boobu est-ce que jar na ko mais xam nga lan mu leeral rek xam nga mu leeral xam nga ñun c'est que Pastef suñu fort xam nga lan la dañ daan anticiper. Diop bu dul dëgg jërul leeral xam nga lu tax bu fekkee ne sax saa suñu la tuumalee nga génn leeral bis bu buñ la tuumalaatee génnoo leeral ñu ne dëgg la waaw dëgg la Sëñ Sall daana ko bu fekkee du dëgg rek jëru ko Sëñ Sall wax bu fekkee nag dëgg la Sëñ Sall daana ko yoon népotisme ok ñëw nga sax ci bi léegi li may wax ci nomination yi mhm. mooy ñun Pastef à chaque fois dañ daan anticiper ci bépp événement buy ñëw peut-être président Sonko amatul jot sorti yi mu naan def di leeral nit ñi amatul jot googu. Mm-hmm. on peut comprendre mais directeur ak ministre yi donte amuñ jot ñoom it di dem ci plateau télé yi comme nii ñu ko defee. Mm-hmm. mais ñun am na ñàkkul passif ay wax waxkat. Pastef ku ko wax ku ko xam-xam ko ci ay communication. cest à topp mi ngi wax ni. mi ngi am lu muy organiser. pour mhm. au moins parce que man pour man lu mel nii. Mhm. ñuy tuumal nit ñi. Mhm. am benn communé comité. boo xamante ni day day day saytu. information yeeg yooyu xam lu génn. ñoom daañu ci mën a communiquer kii dem télé am information. am xibaar bi bu defee mën a weddil. ka nga xam ne moom comme la cas de Serigne Gueye jox xam nga café café fu doon mi ngi jar presque imaginel loolu su ko anticipé woon. da te ñun depuis presque deux semaines yi ngi ciy wax depuis deux semaines. Mhm. jëm nañ jot ministre de commerce. alerte ko wax na ko kafe àgg na 4000 nangam boobu mi àgg 4000. Mhm. da nga war a indi ay solution bala moo àgg 6000 7000 parce que màgg gaa ngi ñëw xam nga li xewoon saako soble màgg Tuubaa mu jël ay 40 000 loolu mën naa ñàkk. kon loolu nañ jël ay mesures mais nañ nañ accessible quoi en fait am na benn cas boo xam ni ñun moom lañ ko doon doy presque une semaine ñu ngi ko mënuñ ko jot Cheikh Thioro Mbacké honorable député bu Touba moo jël kooku en charge presque cinq cent et na ko ci benn ne laa orienté ci benn ci ci benn ci benn hôpital ñu jël kooku en charge loolu du dara sànni ko rien parce que ku toll ni ministère war ngaa mën a jël en charge ko xam ne opération cinq cent mille la c'est que loolu aussi il faut qu'on soit pour population bi pour ñun ñoo xam dañu leen defaan ñun xaaruñ ci benn salaire ñun dañu leen defaan te yàlla tax parce que ñun dañoo bëgg seen réussite parce que seen réussite suñuy réussir la. ok parce ñun loolu moo tax ñu doon xeex. Mm-hmm. leneen li moo ci mbumbaay googu xumbaay googu. <laughs> mais mais Abdoulaye Dieye kay AIBD moo gën a garaaw Abdoulaye ay AIBD li mu def am na ñoo xam ne convention yi mu signé presque communication 1 milliard. budget communication AIBD 1 milliard milliard waxee ñan ak ñoo ci doon bénéfice ngay da ngay waaru comme ni <coughs> foofu moo gën a foofu moom dafa jël sa xolo ay ay ay ay rakkam yu jigéen seen i doom am na xolo am na benn jigéen boo xam ni rakkam bu jigéen moo ko jur xam lu def da koo jël bi mu ko jëlee li gën a garaaw yàggu fa ko quoi mhm. mais chef de département la cest di dire de bureau la ko nommé de mais mu génnee chef de département chef de la génne dugal ko dugal ko dugal si jarbaatam maam dañ ko nommé chef de service. Mm-hmm. chef chef de bureau ngay nekk. nekk chef de service nekk chef de département. Mm-hmm. mu génnee chef de département mm-hmm. moom jarbaatam li gën a garaaw xoolal immeuble bi immeuble bi góor gi si jeex moo ko moom seen direction seen siège bi. fay par mois. te pourtant AIBD wax dëgg yàlla seen immeuble seen siège bi nekk Yoff suñ ko réfectionné woon yaakaar naa su ma juumul mën na leen bañ a coûter sa 40 millions. ok d'accord ak xaaral ma agré xaaral ma agré si AIBD ni ci institut yi. AIBD dafa nekk moo doy waar lool man damaa yaakaar ne gis AIBD pour dire vrai am na ñaari bâche yoo xam ne nii jël nañ ko bâche bi pour les pèlerins fii lañ ko indiwoon Yoff aéroport Yoff lañ ko lañ ko indiwoon chaque jour ñu ngi ciy fay 900000 francs ñaari bâche yooyu mi ngi leen coûté 27 millions 27 millions par mois te xam nga loolu mën naa ñàkk gis nga bi ñu ñëwee di ko laaj di ko càmbar xam nga lu mu wax dane bâche yeeg yooyu yëpp ay secret défense am na ay oto yoo xam ne luy na ko. oto yi bi ñu dikkee ne ko indil contrat yi mais kenn mënut kenn mën laa wax oto bii nangam nangam oto bii nii la ko luyee ci xaas bi c'est-à-dire gabegie moo fa am. Mm-hmm. ay contrat yu ko neex. maanaam saax saaxe albu saax saaxe pasar pasare. Mm-hmm. xam nga li gën a garaaw moom Ablaye Dieye bi muy ñëw su ma juumul ki nekk Ziguinchor la dur ka la remplacé. maam AIBD personnel bi lépp lépp mënatuñu woon sax 400 personnes Ablaye Dieye dem na ba jël ko ba ba mu toll ci 1 million 51 personnes. Euh, un du ah, maan ah, ah, un million cinquante mille. damaa juum mille cinquante une personne. au lieu de au lieu de quatre cent. Mm-hmm. maanaam quatre cent la fa la fa fekkoon quoi mm-hmm. moins de quatre cent la fekkoon quoi. léegi indi na fa léegi mille cinquante une personne. ok te ñoom ñëpp ne xool xaaj bi ñëpp. ñii liggéeyuñ ñii favoritisme moo fa am ñii clientélisme politique moo la fi indi léegi nag mboqam yi la Pape Alé Niang nañ ko wax Sénégal mais pourquoi mënuñ ko wax Sénégal yi Sénégal yi xam ko. Mm-hmm. Sénégal yi ñun directeurs yi suñuy directeurs yi. ak suñu ministre nañ jël seen responsabilité. ok wax ak askan ñii ñii suñu leen waxee li def lépp lépp Sénégal wallaahi waruñoo wax dañoo war a dugg seen rondal yi avant ñu leen di jàppale avant ñu leen di mettre devant la justice nañ wax mbuxum yi ak ñoom yi ñu fi def. mën naa maanaam leeral askan wi li ñu fi fekk. leeral askan état des lieux bi d' accord. exact leen nag mooy chantage yi. Mhm. chantage yi moom ça ne passera pas. ban ban chantage. parce que soo xoolee démb gis nga. lamb ji maa ngi félicité gis nga Baye Ndiaye li mu waxoon sorte ñu génn ñu nañ ko jàppale parce que c'est un acteur développement ISPIG yooyu mais ban acteur développement même su doon acteur développement sax mais dafa war a nekk dans les règles et normes. ok ministre bi. génne na benn arrêté. ne làmb léegi 19h30 ñaari mbër dañoo war a sëgg. mu naan ay lu may mën di wax ay na jël ay responsable. ok loolu c'est un autre sujet hein. exactement loolu loolu moom bokkul woon ci li war a waxtaan. kon li ma gis nga gis na mu doon. dañoo war a sant yàlla bañ leen wane RTS parce que loolu rupture weesul loolu parce que kii Bougane kii Madji Madji de non rupture la non c'est une chose très normale loolu xam nañ ko mais am fóot mm-hmm. c'est-à-dire ñun bi ñu woote ñun ñi ngi ci soo xoolee saawaay saawaay indi na ci benn mooy vacances citoyen patriotique yi ñu war a vacances agricole patriotique yi démb lañu ko lancé naa ci ñëwaat ministre des sports lancé na ko démb ak ministre de l'agriculture merci Diop naa ci ñëwaat xam nga loolu loolu dafa yomb ñu leeral ko ñu ngi wax dëgg yàlla ko bu ne jël bët muus mu ne wala golo gu cëpp ñu tontu ko noonu d'accord d'accord naa naa ñëwaat ci loolu ah mais dama ñëw ci Gaoussou Koma euh, Gaoussou yaa ngi ci opposition bi jamono ji ah. te wax nga ko ku xam ku xam euh, Ousmane Sonko nga ak Diomaye parce que jëflante nga ak ñoom yàgg nga ak ñoom.